jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal ñëpp xam nañ ne coupe du monde bi des na 3 mois waaye suñu joueurs yi ñu bëri ñu ngi nekk ci ay difficultés ñii jàpp nañ leen ci dopage ñii amaguñ club convocation yi ñi ñi jotaguñ seen bos leneen ak leneen ay révélation nag euh, war na cee am moo tax ñu seet sëñ Abdoul sëñ sëñ El Hadj Diop Fakir ñëpp xam ko ci réew mi ñëpp xam ko nag ci révélation yoo xam ne yàgg na koo def ci wàllum football coupe d'Afrique bi daan na leen jox score daa jox daa jox résultat match yi te ren nag ci coupe du monde bi ñu jëm gis nañ tamit ministre du sport bi nga xamante mooy Matar Ba jëlee nañ ko fi Yankhoba ba 3 jot ñu jëlee fi Matar Ba indi fi Yankoba Diatara sëñ bi gis na ci ay ay ay ay mbir yu am solo yoo xam bu ngeen ñu toppee di ngeen di ngeen ko découvrir waaye tamit assemblée nationale gis nañ coow li nga xamante ni amoon na fa sëñ bi tamit gis na ci yoo xamante ni buñ moytuwul bakkan buñ ma moytul làmmiñ gémmiñ dina dina yuuxu dina jug fuñ ko foogeel woon sëñ bi tamit am na ci yoo xamante ni war na ko ci mën a leeral position son Sonko jamono jii balaa élection 2024 ñëpp ñu ngi naan focus 2024 waaye sëñ bi gis na ci yoo xamante ni bu ko Ousmane Sonko bàyyiwul xel war na koo gàllankoor balaa boobu rek dañ koy bàyyi moom Serigne Serigne El Hadj Diop man naan ko Abdoul Fakir mu bàyyi mu nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñoom ñoo koy seetaan sëñ bi bismillah auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu rabbi israh li sadriya wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yaa majidu yaa majidu yaa majidu laa ilaha illa allah muhammad rasulullah mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu di rafet lu teewaay bi ngeen fi teew di ñaan sunu borom fajal leen seen aajo zahiran wa batinan képp kuy déglu émission bi yal na yàlla defal la jàmm may da nga déglu ko ci déglu xel bañ koo déglu dégloo xol lépp lu luñ ci wax luy jariñ doomu aadama yal na yàlla déglu leneen ko lépp luñ ci wax loo xamante ni ak juumte la yal na yàlla def nit ñi baal ñu ko sunu borom jéggal ñu ko di ñaan ñu dugge ci émission bi bisimilah rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin kon ñu ngi leen di ziar di rafetlu seen teewaay di leen wax tafadal bismillah ñu dugg ci liggéey bi incha allah. waaye sëñ bi macha allah dañoo gis ni Coupe d'Afrique bi wala laataa Coupe d'Afrique bi daan nga wax yoo xamante ni ñëwagul Sénégal ñëpp daan ci teg seen bët bu ñë bu jotee ba ci euh, remaniement bi nii waxoon nga sax ni muy demee. ñu doon laaj euh, jeune nga wax dëgg yàlla nekk koo xamante ni loo wax euh, ñu bëri teg ci seen bët xam-xam bi nan la la dikkee ba seet gi ngay seet gi ngay def ñëpp nangul la ko nan la la dikkee. ku baax ki ñu ngi lay ziara di rafetlu waxtaan bi macha allahu taala ñu ngi rafetlu waxtaan bi bu baax a baax a baax waaye li ma lay wax mooy lenn ak laaj bi xam-xam nekkul lu nit ki di fabriquer ci boppam xam-xam nekkul loo xamante ni doomu aadama bi moom moo koy nan tey rek ma am xam-xam déedéet rawatina ilmu lasraar di xam-xamu baatin xam-xam bi bu dee liggéey ak yi daji coono sunu borom daf ñoo tàggatal ñu juddu ci maanaam di daj ay coono yu métti di liggéey dem ay dëkki dëkk dëkk di ñëw nekk xale bu ndaw jóge ci daara ji ñeme coono lool lool lool di ci liggéey guddi ak bëccëg mën a toog atu yàlla du ñu gis sunuy waajur te dara waru ko lu dul ak liggéey kon ñun jékki saa wu ñu toog ni dañoo bëgg lu yomb ne dañuy ñaan wala dara déedéet dafay fekk ni sunu borom moo ko bind ci ñun ndax ba ñuy gëstu xam-xam sax ak di jàng xam-xam ñun jóguñu woon pour ñaan dañ ko doon gëstu ngir xam ko waaye nag ba mu jotee sunu borom moo jël ci ñun def ci ñun loo xamante ne nekkul ni lu ñuy jàng la wala dara ñuy faj ajooy jaami zahiran wa batinan mu nekk loo xam ne du lu yomb nag lu jafe-jafe la mais ay mbirum seet ak mbirum football ak bëre ak kiy toog ci réew mi ak yooyu yooyu damay wax ni yooyu mbiru xale la wallahi alazim yooyu maanaam jaru sonn maanaam tey jii nii nii nii nii nii su ma neexee su ma neexee maanaam nii nii nii nii nii nii suba suba suba suba suba mën naa laa wax yow ñaata at moo la fi dese hmm? te kenn du ko dindi ku baax ki su ma defee yitte ngir bëgg koo xam man naa laa wax yow ñaata at ngay dund te ku yàlla bind mënu koo dindi li may wax sama émission hmm? amul benn mbir mu may nit man koo togg virgule wala mu wàññi ci virgule li ma wax kenn mënu koo dindi parce que du ma waxee sama téyaayu bakken mooy tax su ma waxee ni équipe bi mooy gagné mm-hmm. wala match bi nii lay demee wala kii njàngam lay dóor wala première mi-temps lay dugal wala deuxième mi-temps wala mooy nàngam mooy gañ match yi nit ñi xam nañ ma ci yooyu ñi ma xam loolu nekkatul kaa wala kii mooy daan wala nangam am na ñoo xamante ne tey su ma leen waxoon kii mooy daan dañuy tëdd dem tëddi nelaw te xam ni ala kulli xaalin lu ma wax kenn mënu koo dindi moo tax yooyu ay xam yu terre la yooyu jafeetul moo tax mujj gi sax damaa ne waxatuma ko dama ko bàyyi depuis ba coupe d'Afrique jàllee ak léegi waxatuma yu mel ni yooyu ndax yoo xam-xamu xale la yooyu jafe moo tax su ma gisee xam-xam xale sëriñ bu koy ngand ngandloo ak di ko tiitaroo maanaam ay ree dafa may jàpp kii way daan wala kii way gañee ndax yooyu dafa dafa dafa yomb wallahi azim tellement que ba nga xamante ni yow mi incha allah mën naa la teg ci yoon boo xamante ni bu la neexee incha allah coupe du monde bii ñuy jëm nga xam ni équipe bii mooy jël ndam bi te nekkul loo xam ne da ngay gént ak di layaat ni maanaam lu leer nañ nga ciy am kon yooyu du xam-xam jamono ji nii xam nga kii jël coupe du monde. loolu biti la fanaan sang bi sang bi man man yooyu yooyu du loolu dafayul ku baax kii. balaa balaa émission bee jeex di ñu wax euh, kan mooy jël coupe du monde waaye boo balaa balaa balaa bu ñuy bu ñuy jàll suñu deuxième question rek mooy wàllum samp gi ngay samp nit ñi. Mm-hmm. loolu nan nga koy defee si. waaw samp doomu aadama bi ak samp mbër ak samp équipe sunu borom moo ñu ko mayloo ndax dafa am ci alquranil karim loo xamante ni bu ma ko liggéeyee def ko ni ma koy def am fu ma ko def loolu fekk mu ngi fa kenn mënula dégg tere dégg foog nit benn mbindeef bu yàlla bind mënta tere ñu dégg la mm. bu dee da ngay bëri dinañ la dégg bu dee da ngay fubal dinañ la dégg te doo yomba gañe nag bu dee bëre doo yomba daaneel bu dee football doo yomba dóor bu dee heure bi dëkk boo bëgg a dem ci àdduna bi football yi di nga fa football bu dee ñi nekk ci club bi club bi club boo bëgg a football yi insha allahu taala doo dagaan dem fa de ñoom ñoo lay seen bopp hmm? euh, indi la fa amul sikki sàkka te koy jox app sang bi man lépp lu may liggéey dafa am app man faj maanaam nit ku feebar sax nit ku tawat hmm? bu ñëwee ci man dama lay jox app ndax fii maanaam dama lay bëgg a wax leen na fii dañ fiy faj sida da ngay faj sida. barki alxuraanil karim penku laa jublu. Mhm. ku ma woo am sida bu ñu ñëwee bu ñu d'accord ma fajal la ko te loolu sida dégg waxal sida. sida mhm. ñaareel bi mooy li nga xamante ay wàllum télé yooyu yooyu waxaale ma ko yooyu ay xam-xamu xale la nit ku télé nga yooyu moom du dukkaa yooyu moom. Mhm. xale bi jën a tuuti boo ñëwee ma boole la ak moom mu mu saafaraal la ko loolu du mais li ñuy wax mooy wàllum ko am cancer wàllum ko am euh, euh, sida. ñetteel bi mooy wàllu ki nga xamante ni jalis bi nga xamante ni nit ñi ñu ngi ciy yàq alil alal bu dul jeex mm. bu doomu aadama amee jalis ñëw ci man ci kàttanu sunu borom dinaa la teg ci yoon boo xamante ni diir bu gàtt da ngay saafaraw amut sikki sàkk amut loolu du du xam-xam mm-hmm. sunu borom moo koy maye bu fekkente ni sëriñ biy ñaan dafa bëgg a taxawee ci bind maanaam bind la bëgg a teg ñaanam kooku mënagul ñaan bu fekkee moom ñaanam da ko bëgg teg ci bind ak sangul ak takkal déedéet kooku amul cër ci borom bi xam-xam boo ko amee nit ki dafay wax soxla mu dugg sa nopp bi nga am yéene yi mu faju rek soxla bi dafay faju mm. parce que waaw da liggéey turu yàlla yoo xamante ne tey jii nii dafa lay nangul nangul goo xamante ne li ñu ciy dagaat mooy képp ku ma wax soxla même bu ma deful yitte sëgam am naa yéene mu faju yow yàlla na nga faj soxla am aajo ji ni mu tokkee sa nopp rek boo amee yéene mu faju même dalaa joxoon ay millions donte dafa go benn réaction soxla bi dafay faju hmm? parce que tur beeg rawxaan yi xudaam yu ànd ci tur bi yëpp lépp loo am mébéru suba ba ngoon 24 heures sur 24 dañuy dox ci say mission kon loolu mooy tur yàlla ñun gi dañ see liggéey ba suñu borom may ñu ci ijaaba nii nii damay wax ni man bu mu yàlla wala ma def lenn lu dul noonu man ma dee yàlla lakk ma ndax suñu borom defal na ma ci loo xamante ne tey lu ma ci xëcc suñu borom defal ma ko kurus gi lépp lu ma ci xëcc suñu borom womatal ma ko moo tax du ma fenn du ma lekk xaalis parce que lu yow ma xam nga sëriñ boo xam ne dafay xalaat weer dee mhm. mu fay kooku mën naa fen sëriñ boo xam ne day xaar weer dee mu xalaat ni mën naa fay nangam wala nangam kooku nu mu mën a triant pour def dina ko def mais man ba ma juddoo ba léegi mosuma loué mhm. du fay location suma ma toogoon nii mhm. liggéeyu ma naanaam tëj ne defatuma dara damay lekk damay naan damay sol yére yu rafet parce que yaakaaruma ñaan nii wala génn internet pour lekk xaalis ba ma gëj a génn internet ak léegi yàgg na lan moo ko waral lii may def nii ay nit ñoo may soññ barke alxuraan nan man génnal parce que da war a faj aajoy jaam ma dem ba xam ni jaadootul moo tax damaa jóge màggal Tuubaa ma ne balaa may toogaat si sama liggéey normalement dinaa génn internet bi ñu waxtaan moo tax yéen it incha allah maa ngi rafetlu yéen. ci ci ci ci teew bi ngeen teew. ñu def ak yéen émission. loolu moo waral lii mais man ala kulli xaalin yaakaaruma génn ne internet pour lekk maanaam pour trian wala lekk alalu jàmbur ndax suñu borom teral na ma gën gi teral te teral gi gën ci teral yi mooy lan. teraanga àdduna bi gën bi nga xamante ne dara mënu ko wecc mooy suñu borom defar la ragal yàlla man na kenn du ne maa lekk sa xaalis kenn du ne woo woo nga ma jotoo ma kenn du ne jox nga ma xaalis après dëggatoo ma ndax dara jaralu ma ko xalaatuma weer bu dee ma fay location xalaatuma bëgg yëre te aw ma ko xalaatuma bëgg lekk gu neex te aw ma ko kon lan laay fen lan laay kii moo tax li may wax képp ku ñëw ci man yàlla na suñu borom faj si aajo képp koo xamante ne da nga am faneen wala nga yaakaar faneen yal na la yàlla yóbbu faneen nga dem ak jàmm mais fii képp ku fi ñëw insha allahu taala barke alquranil karim suñu borom day faj si ci kàttanu suñu borom mi ngi noonu ngeen jàkkaloo nag ñu naan ko Abdul Abdul Fakir tey nag ñu ñëwoon fekk ko ci bërëbam bi nga xamante fi lay jaamoo yàlla wax dëgg yàlla gis nañ bërëb bi ni nga ni ni mu ko ni ko décoré di ci direk ngir jaamu yàlla waaye sëñ bi da ngaa wax léegi yu yéeme muy di nga faj sida di nga faj cancer ak euh, drep ak euh, yi nga xamante ni mooy jàllum jalis ak yooyu noonu est-ce que yooyu noonu am na ñoo xamante ni ñoo jot nañ fay ñëw ba nga faj leen bañ bañ gis ci résultat. waaw maanaam pour si gàttal. Mm-hmm. nga wax dafay dafay. dina tungoom dafay dafay tungoom seede maanaam lépp lu ma wax tey jii nii dafa am jàngoro yoo xamante ne bokkul ci sutura mu naan laan demal ci diw nga laaj ka ak nangam ak nangam mais sama téléphone bi ay vocal yoo yoo xam ne ñu ngi ci bu ma la ko tegaloon bari ci alxuraanin karim da naan amut saa fii façon feebar bu ne faj naa ko fi doom aadama ba nii may wax ak yow nii jàppal muy benn mhm. di cancer jàppal muy ñaar di dérépolo yooyu yëpp incha allah yàlla boole nañu ñoo xamante ne ñu ngi leen koy fajal nii maanaam te yàlla dogal na it am naa koo xamante ni bu baax a baax a baax te dañuy gis tan yàlla dogal na it am naa waa joo xamante ni moom hôpital la nekk ab docteur la médecin la ñu ngi ciy def ay jéego yu yaatu man moom parce que ñoom ala kulli xaalin dafay am ay ñoom ñu feebal yooyu da leen di sonal foofu bu ko defee mu mën leen di leen tourner di leen indi ci man ma leen di faj ñu ngi ciy def ay jéego yu yu yaatu moom sama benn waay la docteur la maa ngi koy ziar bu baax a baax xëy na bu ma tuddoon juróom ñu bari nañ ko xam waaye du ko jaar incha allahu taala waaw sëñ bi dañoo toll ci réew mu xamante ni wax dëgg yàlla ñu bëri euh, bëgg nañ siiw ci wàllum jeune bi bëgg nañ siiw du ci mel réseaux sociaux yi TikTok bi Facebook beeg ñu bëri ñu ngi ciy génn di te am xëy na li nga xamante ni moom lay laaj ñoom yoruñ ko muy wàllum kaaraange est-ce que ku ñëw ci yow dina am kaaraange goo xamante ni sécurité totale lañ koy wax sax. waa maanaam loolu dama ciy sànni tuuti. ji nga ndaw yi nañ bàyyi xel bu baax damaa wax a wax a wax a wax ba sonn. Mm-hmm. émission bi maa ngi ndaw yi maytu bu baax a baax maa ngi ko ciy wax deuxièmement maa ngi doon wax ni accident yi dinañ bëri ku ku kii na dem sama émission du ma tudd site bi mais boo tàppee sama tour dinañ la indil émission yi maa ngi ci doon wax ne accident yi dina bëri ñaareellement maa ngi doon wax ni doomu aadama surtout jigéen ñi nañuy maytu bu dul loolu ay dee ak ñeme bët ak yooyu dina dina dina dee dina leen yomb loolu maa ngi ko ci maa ngi ko ci doon wax. parce que li may wax nekkul damay toog ba ci yàgg rek commencé naan c'est-à-dire parce que man duma ma defee noonu lépp lu may wax damay am fu ma koy teg parce que li ma yàlla di woon la moo tax damay gis nit ci TikTok saa mu leer ma ne kii maanaam bàmmee la ma ngi nii taxaw. Hmm? moo tax nit. nit dafay nit dafay maytu. nit dafay maytu man damay dugg TikTok gis nit mu leer ma ni kii maanaam mi ngi génn TikTok ay fan yu néew moo ko dese. ndax ñàkk kaaraange. kon doomu aadama tax dina dem ba nit ki boo ko xoolee rek xam ni kii ay fan yu néew moo ko desee te kooku est-ce que bu ñëwoon ci yow di nga ko di nga ko di nga ko utal kaaraange wala wala wees na. weesut. weesut bu ñëwee mën nañ ko utal kaaraange mais da ngay gis nit mu leer ni kii amul ginnaaw amul ku ko jàppale te yoon bii mu jëm amul mag mu koy gindi ñi ànd ak moom ñëpp li ñu koy conseillé mooy yaa ci temps bi nekk ci góor maanaam yoo xamante ni maanaam duñ ko teg dëgg dëgg dëgg dëgg li am te bët euh, baaxul làmmiñ baaxul ndax sunu yonent bi sallallahu alayhi moo ñu ko jàngal ne al aynu xaqun wa lisaanu xaqun mhm. kon làmmiñ ak bët li muy gàllankoor ci doomu aadama dafay bari moo tax képp koo xamante ne yaa ngi génn TikTok wala ngay génn télé wala YouTube te amoo kaaraange billahi allazi laa ilaha illa huwa nii laa ko waate woon ci sama émission yu mujj barki alquran yaa ngi gasal sa bopp bàmmeel te dee yu ñàkk fu ngay dee kon doomu aadama yi nañuy bàyyi xel loolu baax ñëwoon ci yow rek nga defal ko kaaraange bu yomb mënoon na koo sauver maanaam mën na ñëw ci man mën na dem sax faneen koo xamante ne yàlla dogal na mu man am na koo xam ne bu demee ci ñoom ñoo ñu mën nañ mais ñaan moo yombut sang bi loolu laa la bëgg xamal yàgg naa koo wax ñaan yombul man ngay takk 24 heures sur 24 gàllaaj te amoo gàllaaj man ngay sangu 24 heures sur 24 te amoo amoo amoo gàllaaj ñaan moo yombut hmm. moo tax ni ngay gisee nii ñi ma xam-xam nañ ma man du ma négocier ci ay ñaan boo bëggee lu baax da nga may fay xaalis ma liggéeyal la moo tax ni ngay gisee nii man ne bokkuma ak sëriñ si ñu bëri nu ñuy doxee hmm. nu ñuy doxee man du ma neexal nit xooluma li ma am lijjantiwuma la faalewuma la xaw ma njaay nga sant xaw ma jóob nga sant xamu lu ma xam nañ dund dund taabile wa taalibe wax ma li nga bëgg ma wax la ni muy demee mais duma naxante ak bëgg a lekk sa xaalis tey sama téléphone bii boo paree dinaa la ci wan ay xaalis yoo xamante ne ay doomu aadama ñoo ma ko envoyé masuma leen teg bët bu dee dund mën naa cee dund ren ba déwén billaahi wal kitaab bi di sol lu neex di lekk lu neex bu mu tëjoon ne defatuma dara loolu mën naa cee dund waaye li ko waral tey ji képp ku ma jox sa alal ak nu mu mën a toll ak ay millions la yow doo ko réccu di nga xamante ni liggéeyal naa la ñaari liñ ma jox parce que dama ciy daj coona damay liggéey dama ñëw fala-fala ne ne ne déedéet lépp lu ñu d'accord ma ne yow dama koy jaarale ci yoon bi nga xamante ne mooy yoon bi gën mais du ma naxanteeg yow duma ma lekkanteeg yow ay ay teganteeg yow diil man duma façon boobu moo tax neexumaa liggéey neexuma deret boo ma woowee tak wax ma mbir dama lay wax temps ak temps bu la jaralee baax na bu la jaralul nga coupé sa téléphone nekk ci leneen kon man ñi nekk extérieur it xam nañ ma bu baax a baax a baax man maay seul sëriñ bi ngay woo jox ko sa xaalis mu lay nemmeeku man du ma xaar nga may woo mhm. danga may woo jox ma sa xaalis man maa lay nemmeeku bu fekkente ne joxagoo ma sa dërëm nag lijjantiwu la bis bi nga ma njëkkee woo boo ma déggaatee yaa ma woo donte fukki at la mais boo xasee ba yëkkati sa alal jox ma ko man maa lay nemmeeku foo toll naka liggéey bi ak nangam nangam dootuma xaar nga woo parce que da ngaa yëkkati sa alal jox ma ko mhm. man maay benn sëriñ bi woote te képp ku ma woo donte junniy appel lañ man bu ma paree dama koy topp benn benn benn benn por benn ndax gënuma leen di yàlla moo dogal may ñaan mais pourquoi man maa leen ñoom man ñoom ñoo ma war a woo waru leen a woo kon ma nit du ma façon sëriñ boobu nit kase laa jaam kase laa moo tax sama tuur bi gis nga alxaaji Jóob Abdul Fakir mooy mbóot la mooy tekki jaam boo xamante ne jaam bu ñàkk la ndax yàlla moo ñu yaa yoon naa su antumul fuqaraa illallah wallahu wal ganiyul hamid yéen nit ñi na ngeen xam ne ay nit ñu néew doole ngeen ay nit ñu ñàkk ngeen moo tax ma delloo waat sama boppu nekk ab jaam kase wane ni yàlla jaam bu xeebu laa moo tax képp ku may jëflanteel doo gis ci man benn qualité lépp li ngay gis ci man mooy ak taalibe Serigne Touba la te ak taalibe Serigne Touba dara moom kon noonu rek la demee fa tabaarakallaahu waaye bi dañoo nekk ci dans un monde muy monde boo xam ne nit ñi dañuy xëccoo wax dëgg yàlla te tiraillement bi bëri na am na ñoo xamante ni euh, bu dul sax wàllum samp bëgg nañ fi nga xamante ne nekk nañ fa di wàllu ci ci seen wàllu liggéey bëgguñ ku leen fa jëlee wala bëgguñ ku leen fi ku leen di bunduxatal wala bëgg bëgg nañ avancer ci seen wàllu liggéey est-ce que ñooñu tamit am nga am nga am nga solution ci ñoom. waaw baat bi may wax du ma ko wax dama koy bind nii. nii nii di lii ma def nii mhm. boo tijjee lii ma def nii kase mhm. boo tijjee ñaari am na ñaari ci nekk boo ko tijjee dugal sa tur lem ko suul ko ci palaat ba ilaa yow min yu baxasun kenn mënu la faa jële laa ilaaha wax ji leer na nee na du ko lii kase daal liyaar bu ma nit fayee téeméeri junni mhm. wala million ci lii laa koy liggéeyal nii nii du ma deux minutes ma dugal ci li may dugal lem ko ne ko suul ko fa ba ilaa yow min yu baxasun xoola kenn mënu ko faa jële <laughs> moo tax xam-xam xam-xam comme li nga wax ñaan yombul waaye waaye waaye xam uti xam-xam moo jafe. uti xam moo jafe lii sama benn kilifa moo ma ko jox koo xamante ni sama baay la sama maam la ci moom laa ko jëlee ma liggéey ci lu ne. nit ñëw ba tàyyi wàññi alal. di ma wàññil di ma wàññil. Mm-hmm. ma liggéey ko ci une une minute wala trente secondes. Mm-hmm. jox ko mu dem kenn mënu ko fa jële <laughs> <laughs> mi ngi kenn mënu ko fa jële waaye am na ñoo xamante ne fi ñu nekk it bëggu leen fa jëlee muy waa assemblée nationale. gis nañ tamit euh, seen seen seen coow yi nga xamante ni amoon na ko lan nga gisee coow loolu ci ay mag kilifa yoo xamante ni dañoo dem élection ñu voté leen wóolu leen teg leen foofu ñu nekk ñu fay indi ay xuloo ki ay xeex. waaye loolu moom naa la wax leen du fi jóg loolu moom dara mënta tax mu jóg fi bu ñoom buñ fi jógee ñeneen ñi ñëw noonu la ñuy doxee loolu moom. Mm-hmm. du problème mu ñaan du problème mu dara. naneen ni ñu fay teg ndax ñoom ñëpp seen intérêt bopp moo leen moo leen ñor. ñoom ñëpp ñëpp seen intérêt personnel rek moo leen ñor mais dëgg dëgg dëgg ñi nga xamante ne ñii seen intérêt intérêt général moo leen ñor di intérêt peuple bi loolu lu néew la ñi si des ñëpp boo xoolee bu dee téeméer 90 yëpp seen mbiru bopp moo leen ñor. moo tax loolu du fa mën a jóge mais bu fekkente ne mën ak yow li ñu bëgg mooy kër gi jàkk. soxlawul kay ma ne la man kese defal kër gi li ma lay wax mooy defaral fële ma defar fii mais bu ma demee kay bu bëgg la génn kër gi ne man kese defal kër gi yaa quelque chose kon bëggatuma kër gi jag damaa bëgg leneen loo xamante ne ci man la jag kon ñun ñëpp nañu ànd defar réew mi jarul xeex jarul xuloo jarul xeex jarul xuloo kon ñun ñëpp bu ñu àndoon rek te gëm yàlla te bokk ni réew mi moo ñu ñor ala kulli xaalin du ñu xeex duñu ñu xuloo dinañ ñëw waxtaan xool ni mu gën a rafete ñu def ko waaye képp koo xamante ne yaa ngi ci te amoo kaaraange amoo mystique. yow say waa kër nañ jënd benn percal lemal la ko tegal la ko ne te xam. biir assemblée nationale. biir assemblée chaque jour te xam ne yow mën ngaa wàcc. na am na yeneen ak yeneen yu fay xew. biir assemblée est-ce que du bi dafa am kon. fara ne. am na ñuy liggéey seen moroomu député kon. maanaam looloo ne foofu maanaam foofu képp ku amul gàllaaj ak di jaay naan tubaab nga ak yu mel nii yow seetaanal rek. est-ce gis nga député yoo xamante ni da nga leen di xool xam ne ñii pare wuñ mystiquement wala mën nañ leen a sax jekku du jeex du xaaj bëri na ci ñoo xamante ni instant bi may wax ak yow dañoo am ay feebar. waaw bëri na ci ñoo xamante ni bu ñu seetaan seen vidéo dinañ xam li ñuy wax ñu ngi ay tawat yoo xamante ni tey jii nii million faju ko ñaari million faju ko. allahu bu ñëwul ci sëriñ bu xam dëgg dëgg dëgg dëgg duñu duñ duñ de. feebar boobu mën na leen a rey. mën na leen a rey mën na leen a rey. du jeex du jeex man li may waxaat xam naa ko bu baax a baax. feebar boobu noonu ñi nga xamante ne est-ce que du assemblée lañ leen ko defee wala wala ci xëccoo bi wala nu mu demee noonu. maanaam dafa am lu ñu xamut liggéey nekkul ni da ngay jóg pour liggéey nit kese pour mu dee nga liggéey ka rek mu dee. Hmm. bu liggéey bi jaaree yoon. Hmm. même bu nit ki faatuwul dafay am jeexital yu muy def ci nit ki. ñu bëri dañoo jàpp ni boo jógee pour liggéey nit mu faatu deewul rek. maanaam liggéey bi jàpp déedéet mais liggéey bi am na yeneen jeexital yoo xam ne mu dee woon xëy na mooy gën a yomb mais liggéey bu baaxee du hasard du nekk lu nit léegi nag kiñ ko def loolu mooy waral tey parce que nit buñ ko liggéeyee ala kulli haal li mën a jàpp mooy tànkam wala boppam wala biiram wala bëtam cër yooyu lay jàpp nag jàpp tànk yi suba mu ne bopp bi ginnaaw suba mu ne biir ginnaaw suba mu ne ndigg li noonu lay def nag ba nit ki yàqu bu yàqoo nag ala kulli alin kooku dootul yomb defar mais képp koo xamante ni dañ laa liggéey. ba nga xamante ni amatoo ci sa bopp yaakaar man boo ñëwee ci man bu ñu d'accordé mën naa la ne téyel sa xaalis demal nga jënd sarax naa nga def ko ma jox la samay sagan nga sangam billaahi wal kitaab bi barki alxuraan coccu ngay def maanaam li may wax. te ci délai bi du yàgg. sa waay sama benn waay da daan wax ni. Hmm. mën naa ko yàgg na mënu ko. sama benn waay. Mhm. sama xarit. Mhm. loolu la daan wax. bu ma waxee mu ne ma mën naa ko yàgg na mu ne ma mënu ko. Mhm. waaw bu dee xaalis nga ko joxoon jolaat ko bu dee leneen récupéré mënu ko. man lépp lu may faj nit insha allahu taala dama lay jox dale ci kat kàttanu sunu borom. boo toppee traitement yi ma la wax ak na ma la ko waxee balaa dale boobu néew ma la di nga wér de bu dee feebar mais yow yaa may wool sa bopp ne ma sëñ bi sant naa. bu yàggul fii faj naa fi doomu aadama boo xamante ne sang bi mi ngi ci 40 ans presque depuis ba muy nekk xale alal ju ñàkk naka ci feebaram bi. ba mu ñëwee ci man ñu d'accord diggante mu daw dama koo saafara vocal yaa ngi fii ci man. waaye eh, waxtaan bi buñ ko toppee côté boobu war nañ ci mën a am ay questions yu bëree bare bare bëri ndax sénégalais namoon nañ la ci sa ci sa xam-xam bi nga xam ne yaa ngi koy def ak ja dimbali yi nga xamante ni yaa ngi koy dimbali doomu aadama yi amuñ sa amuñ sa fay cant ak ngërëm ñeel na la ci loolu noonu waaye nag dañoo jëm ci coupe du monde te gis nañ suñu suñu suñu doomu réew suñu gayndey ñii jàpp nañ leen mystiquement waaw ñii seen i club ñu ngi leen fay bund xataal ñii ñi ngi leen di jàpp ci ay affaire dopage ñii leneen ak leneen gisoo ni Sénégal équipe bi laaj na càngat goo xamante ni moom moo war a taalaat équipe bi. waaw bu baax a baax a baax a baax parce que maanaam bu ñu jógee coupe d'Afrique coupe d'Afrique bi man dama cee liggéey lu am solo. Hmm. dama cee ñàkk alal dama ci doon def sama xaalis di def sarax nit ñi ump leen. ba ci site bi ma mujjee defal émission ñoom chaque match. Hmm. dama doon déggante ñoom dañu doon lire sama stat yi. dis ak vidéo yi di daw damay joxe score match yi damay joxe score match yi te sarax yu ma defit dama koy génne wane ko ñëpp gis ko balaa match bi di jotee damay wax ni match bi nii lay demee kon Coupe d'Afrique bi dañ cee liggéey liggéey yu am solo yoo am ay nit it yoo xamante ne réew mi da leen ñor ñu doon jaayante di ci def seen alal mais man sama alal li ma ci def kenn xamut na mu toll ngir Sénégal jël coupe bi kon man réew mi sama réew la jaayante naa ci lu ne mais bañ fa jógee damaa ne am na joueurs yu bari yoo xamante ne buñ digul seen bopp dinañ blessé duñ dem coupe du monde mais Sénégal booy wax dara dañuy xam nga nit ko xamante ni yow yëgul ni yaa ngi noyyi ñaanu la saraxu la kooku bu lay wax euh, fagarul sa bopp sang bi dafa bëgg rek nga am. mais mais seen blessure yooyu noonu ba mu teree leen dem coupe du monde bi gisoo ni am na lu ci làqu. moom laa lay wax li tax ma wax la loolu tey jii nii am na benn mala bu ma wutee tuuti benn mala bu ma wutee tuuti nii nii. ci kawar gi am na nu ma lay joxe nga def ko ak benn sow yi am na nu ma lay joxe ak ma ma euh, li ñuy tuddee euh, euh, njàmpe ñax yi. nga def ko pour pourtant yow sa pour pourtant boo footballoon 30 ans sang bi blessé du la yomb de. Hmm. blessé déedéet da ngay football ba bàyyi football mais diw ba toog na blessé na ay mat déedéet. Bamba gis nañ ni dafa blessé gis nañ ni mu ngi ci ay mi ngi ci ay xat-xat. am na ñoo xamante ne nee nañ dañ ko jàpp mystiquement est-ce que loolu feeñ na ci. waaw maanaam xam nga ñoom ñoom képp ku ci dem di nawetaani da ngay gëm sëriñ si booy football championnat da ngay gëm sëriñ si mais boo demee ba nekk professionnel di fayee ko say milliards nga jël sëriñ teg ci ginnaaw yàpp ni sëriñ si maanaam ñoom euh, euh, maanaam tekkeetuñ dara daal. te yow Serigne Seye la yóbbu foofu moo tax ñoom ñi nga gis équipe nationale bu ñu jàppee ne maanaam dangay ngay ñëw nii rek dem fubale euh, dem nii te amoo mystique waxuma blessé de barki alxuraan doo gudd fan. billaahi wal kon Bamba Dieng dëgg la dañ koo jàpp mystique maa kon. waaye loolu amul werante amul werante nañ jóg seen bopp man waxuma Bamba Dieng soxla ma ñu woo ma mais nañuy jóg seen bopp. mais est-ce que tamit à part Bamba moom bosom dafa dafa dafa mais am na est-ce que am na ñoo xamante ne convoqué nañ leen mais gis nga nit ñi tamit mystiquement leen. buñ seen bopp nii ñii ñu convoqué nii buñ jógul seen bopp dina bëri ñoom duñ dem. te convoqué nañ leen te convoqué nañ leen ba pare buñ buñ jógul seen bopp duñ dem. man kay li may wax leer na maanaam bépp réew bépp euh, place boo gis dafay am xëccoo équipe nationale li fa nekk ci mystique maa la day taali li fa nekk ci mystique dafa dépassé muy joueurs di ci entraîneur di ci dirigeant yi képp ku ci amul bopp barke alxuraanil karim boo ñàkkee sa post yow moom santal te xam ni ko am ñaanu waajur nga mais leneen li sax moo gën a métti ay ñàkk post yooyu. ministre bi nga xamante ni moom lañ dénk wàllu sport bi est-ce que gis nga ni mën naa yóbbu mën na fee indi coupe du monde bi comme Matar ba ni mu fi indee coupe d'Afrique euh, ni mu ko fi indee waaye du ne dina nekk loo xamante ni foog mu def yitte dëggantaan jaay. est-ce que pare na. ndax Matar ba bëri na ñu ko doon ñaanal ñoo xamante ni mataar ba joxu leen dërëm dañoo amoon yéene ci moom ak bëgg ko di ko ñaanal kon ala kulli alim ministre bi foog mu dem ba toll foofu ci xolu sëriñ si ndax kub bii ku ko gis xam ni kubub sëriñ la eh. sëriñ yi dañ cee def lu ne kub bii ku kubub sëriñ la man jour final bi quatre-vingt-dix minutes sama waa kër ñu ngi may déglu quatre-vingt-dix minutes maa ngi nekk ci match bi quatre-vingt-dix minutes maa ngi nekk ci match bi xefuma rafuma jàkkaarloo tere bi nekk ci samay liggéey ak na ma koy defee na ma koy defee ba ma paree sama yaram bi yëpp doon metti te lan moom ma ko jaral sama réew mhm. te kenn Matar Ba joxuma sama fara mais Matar Ba moom nga wax dégg nañ dafa feebar Ba li ma la wax léegi laa lay waxaat képp ku ci feebar wala ñu wàcc la sa poste yow santal hmm. waaw li may wax dafa leer yow moom dafa war a sant hmm. képp koo xam ne dañ laa wàcc fi nga newoon yow santal loolu gën a ndaw te xam ne boo amul ñaanu waajur da ngay faatu. kon Matar est-ce que du ñaan moo ko jëlee fi mu nekk kon. yow mii di ma laaj xam nga ko di yow yaa ma koy laaj mais xam nga ko xam nga ni Matar fi ne woon ne li ko fa jëlee yow xam ni yow xam nga li mu doon. Eh. te doo ab sëriñ yow xam nga ko di. kon am na yoo xamante ni jarul may wax sax man mii yàlla may ak sëriñ ku yàlla mayul sax da ngay xam ni réalité bii ni mu demee mais bu ñëwee ci kàttanu yàlla incha allah mën nañ ko jàppale te duñu ko laaj dërëm. foj ko ba mu wér te duñ ko laaj fistine ci feebar bi feebar yi nga xamante mi ngi ci moom. ci moom duñ ko laaj dara dara dara dañ koy faj ba mu wér. ba mu faj remaniement bi am na keroog. gisoo ni Serigne si tamit ñoom ñoo def remaniement comme que Serigne si ñoo fi indi Coupe d'Afrique bi si ñoo def remaniement bi am na ñoo xamante ne pare nañ mystiquement ñu fal leen def leen ministre. si Serigne si waaw. non non comme sëriñ si ni ñaanee ba coupe du monde ba coupe d' Afrique bi ñëw fi gisoo ni am na ñoo xamante ni dem nañ ci ay sëriñ lu ba sëriñ si ñoo leen ñoo leen ñoo leen fal ñoo leen fallu ci ci kii ministère yi. amul amul werante amul werante loolu loolu amul werante sang bi. ñu daal Sénégal ku fi amul mystique. ñu nekk fii ñu nekk dëkk bi ngeen ma fekk maire bi fii toog ba may wax ni day jël maire bi ëpp na un ba may wax ni day jël maire bi ëpp na un parce que da laa seet si woon. am na ay nitam yu ma xam nag. am na ay nitam yu ma xam non am na ay nitam yu ma xam te dama leen waxoon am sarax boo xam ne ma ne leen boo leen ko defee bu toogul ci maire bi maanaam ñu dem police ñu signé man tàkkoor naa ñu se ñu tëj ma trois ans. yow yaa d'accordoon loolu. Alxuraanil Karim ñooñu ba ñu ma dégg dama leen ne na def sarax nangam ak nangam bu fekkente ne jëlul maire bi nañu bu ko defee nañ dem police. ban maire dëkk bi. ki toog si réewum mbuur meeru mbuur bi rek. <laughs> <laughs> waaw jarul ma ne leen nañuy dem police ñu def ma signé trois ans ñu tëj ma ko kaso kon li may wax sa waay neexul a dindi waxuma ay tàppale ak bëgg ko ma woo wala noonu man yàlla suturaal na ma teral na ma mm-hmm. waaw ndax ndax laa fa fadala laa fadala li arabin wala ajamin illa bi taqwa inna akramakum inda allahi atqaakum suñu borom joxal na ma teraanga gi gën ñaanu ma ñaanuma lebuma saraxuma suñu borom moo ma defal ma doylu am ragal yàlla am ay xéwal macha allah fa tabaarakallaahu kon sang bi ñu ngi sant bu baax dara jaralu ma fenn wala may wax lenn lu dul dëgg mais képp ko am tawat boo ñëwee ci man ñu jàppale la képp ku bëgg ay këyit moo xam bitim réew nga nekk ak foo mën a nekk ak këyit goo bëgg bëgg ak liggéey foo bëgg a liggéeyee boo ñëw suñu ne jàppale bu dee équipe dëkk boo bëgg a yi dinañ la jàppale ba nga dem fa ci kàttanu suñu borom bu dee Sénégal bu ñu ñëwee ci ñu incha allah ni ñu leen jàppale woon ci coupe d'Afrique bañ indi coupe bi. Mm-hmm. billahi wal kitaab bi mën naa leen a ba quart de finale jël bii. waaw. quart de finale nga yem de quart de finale tuuti na de. dama lay wax maanaam dama lay wax dinaa leen yóbbu ba quart de finale te duñ jël bii ba pare ñu door a jéggi beneen étape. am na lu may liggéey jox ko nit ak ni mu koy defee. <laughs> maanaam fan yi rek dama cee liggéey ay kéemtaan yu doy waar ci ay match yu amoon ba indi maanaam pour am na coow lu leen doon dégg stade de Mbour amoon na tuuti kii ci stade bi fii. Mhm. jour boobu man maa fa indi woon coow lool parce que dafa am ay nit yu may nit yu ma seet si woon ma am lu ma leen liggéey la jox leen ñu teg ko ci camp yi bañ ko fa tegee noonu gars yi football nañu premier mi ba bañ jàtt nit ñi football mi ngi mel ni yow ma jox la xale bu ñaari at ñee ñoo mën fuuf. mais mënuñoo dugal football deuxième mi-temps ba 20 minutes mënuñoo dugal. après man indi naa fa coow sax parce que jour boobu damaa euh, ñëwoon noonu euh, di di xool ba mu ñëwee xool noonu ala kulli xaalin si laa gis après am na benn tout tànk boo xam ne mu ngi wax ak man bàyyil suñu baleeg yooyu ba gars yi nar ko fa dóor foofu indi ko problème ma gis nga affaire boobu dañoo ñëw coppati ko si kaay matul 5 minutes ñu dugal leen. waa loolu bu ma ko joxee nit lu ndaw la lu tuuti la nga ñëw sànni ko ci camp yi ba ilaa yow mi nuy bii ka yooyu bii dafa dugg mi ngi noonu buñ ko buñ ko toppee macha allah am na lu bëri lu ñu war a wax bëri na moom euh, ki nga xam ne dafa fees dell ak xam-xam muy sëñ El Hadj Diop ñu naan ko Abdoul Fakir macha allah yéen ngeen xam ko muy seen xet di seen soppe heure bu génnee waxtaan ak yéen ci njariñ ci xam-xam waaye waxtaan ak yéen ñaax leen dolli leen dolli leen ragal yàlla muy euh, sëñ El Hadj Diop di leen jox dig daje rek ëllëg ci benn émission Mara jërë ngeen jëf.